إله إلا لا أعوذ بالله <clears throat> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين كفى في الشكر عنه في الماضي والآتي والصلاة والسلام على خير العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله عن شيخنا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وعن خلفائه وأصحابهم أجمعين ومنهم خليفته الشيخ عمر الفوتي رضي الله عنه وأرضى عنا يا همة الشيخ فاحضر لنا في هذا المحضر والتبنا للنصر تأتي بالسفر ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من, من لساني يفقه قولي بوكي غناو بن buñ sant مي بروم borom bi te wax nañ nag wax alhamdulilahi rabbil alamina rek doy na sant xéewal yi yeesu yi ñëw yëpp ñu ngi wax alhamdulilahi rabbil alamin ci xéewalam yëpp di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy gën ci mbindeef yëpp te mooy ki leen di tëbb mooy ki leen di yar mooy ki leen jàngal di ñaanal ngërmaane sax suñ sëriñ Cheikh Tidiane yal na yàlla yokk ngërmaandeek yërmande ak leer hmm. ak i xalifaam yëpp ak seeni saxaaba rawatina xalifaam bii nga xam ne mooy Cheikh Umar al Fuuti radiyallahu nga xam ne moo taalif téere bii ñuy jàng muy Rimah di téere boo xam ne téere buy defar nit la rawatina ki nga xam ne dafa bëgg a dem ci yàlla ah, ñu nekkoon ci faslu juróomeel bi bi nga xam ne mu ngi doon wax ñi nga xam ne kuy woote ci yàlla ni mu war a mel te bokk na ci mu nekk koo xam ne dafay xam lu mu jore ci loxoom di liggéey bañ a nekk gëngal ci kaw nit ñi ndax ku toog rekk ñu lay dundal te defoo dara samu xamoo ak ngóor a loolu la Cheikh Omar wax ñu ñëw tey ci continuer hmm? وقال وقال لقمان لابنه وقال واخنا لقمان لقمان لابنه من لقمان يونس من ديدت حكيم لون نيتا يال لون واخنا دوم دي يا بني يا سانس دوم حملت حملت آه حملت آه، آه، حملت حملت حملت صخوره ولا صخره عملت الصخورة ولا صخرة بين لبن لا والحد... أي خير والحديدة أكبن فلم أرى شيئا أثقل من الدين دين من الدين آه قسم الدار اللي قلنا ديس لونك هناك لو ديس لو من لك لو ديس لني هنو هنو ناك واي قسم اللي قلنا ديس وأكلت الطيبات لكن أي وعانقت الحسنات الحسان الحسان mag jo ma lekk naa yu neex yi jooj joon ak jigéen ñu rafet ñi falam ara shay'an waaye gisuma dara alladhu min al-aafiyati lu gën a neex jàmm lu gën a neex lu nekk neex lu neex lu nekk def naa ko waaye gisuma lu gën a neex jàmm de xam jàmm fee feebaroo amoo problème amoo looy ragal aafiya mooy loolu dangay am wér-gu-yaram am dalam xel loolu loolu da am aafiya wa zuqtu al-mararat waaye nag mos naa yu weex yëpp. kullaha lépp lu mos a weex loo foog ne mosuma ko si lu weex rek mos naa ko. falam aduq shay'an. waaye mosuma dara. amaru min alxaajati. ila naasi ila naasi. waaye mosuma dara lu gën a weex lu gën a weex xam soxla xaaju si nit ñi lu mu weex lu nekk mos naa ko waaye mosuma mos lu gën a weex xam soxla xaaju si nit ñi. am soxla dem si nit ñi dara gënu ko naqari waaw loolu la Luqmaan ne na doom yow sama doom. xenn lu diis lu nekk xenn naa ko xeer xeer ak weñ ak yëpp xenn naa ko waaye mosumaa gis lu gën a diis bor lu neex lu nekk mu lekk naa ko jigéen ju rafet ju nekk jooño naa waaye mosumaa gis lu gën a neex jàmm xaafiya lu wex lu nekk mos naa ko waaye gisuma lu gën a wex xaaj am soxla si nit ndax da gis ko am soxla si nit boo da ngay gis ko am kersa dana xokkatu dana xasanu dana def lu nekk وقال شعراني الامام شعراني واخنا من اخلاق السلفي بوكو نتي ديكوي نين جيتو ني باخ ني موي سلف الصالح تقديمهم القوف سين جيتال رغال من الحاجه الى الناس تي حاجه نين ني على خوف الحساب تي رغال رغلي عن جهه المال والو حلال الذي ربما دخلته الشبهه دخلته دخلته الشبهه تي وات تي ورك حلال غو خامني خمانا سا لنت دوغو من نجهك ني dañ daan ragal di am soxla dem ci nit ñi moom lañ gënoon a ragal ci am xalal joo xam ne doonte sax lëntëng ci regle ga leen koy regle moom moo leen gënal ñuy xam soxla di dem ci nit ñi xam xalal joo xam ne lëntëng ci te yàlla bu àllaaxira yàlla taxawal di la ko regle moom lañ gënoon a ñeme ci dem xam soxla di dem ci nit ñi ndax tiis bu mu leen tiis وقال سفيان الثوري سفيان الثوري وحنا لأن أخلف لا لأن أخلف أخلف نعم 10000 درهم ما ما باي سما غناو فكي جوني درهم أحاسب عليها أحاسب نكوي نموي نموي حساب أحب إلي مو غن سوب من من أحتاج إلى الناس من أن أحتاج إلى الناس ماي سوخلو ماي حاجو تي سنين ما هم فكي جوني درهم تا بو فكي جوني درهم لاي أي مليون لاي ma am fi ay million yu bari ma bokk sama gannaaw ba àllaaxira ñoo koy régler moma gënal may dem di soxlaal nit ñi wa qala mu wax al mal fi ma mada sawri mo fate mu xalal ci la fesson yu ko rew dañ ko daan sip wa amal yawma amma tay nak fa huwa mom tirsul mu'min tirsul mu'min moy pakkab julit moy defanam julit halal bu njëkkoon dañ ko sibon diko ragal waye léegi nak tay ji suñ jamono ji moy défense am julit ndax julit bu ko xamul boo saagantut sa diine ji dañ ko jam da nga sa sa ngor gi dañ ko jam sa sa lépp dañ ko jam wa qaala mu wax xifzuka lima fi yadika wattu li nekk ci sa loxo bi li taqdi bihi xaajatak li taqdi bihi xaajatak ngir nga say aw min tatas min tusaddiqa min tasadduqika tasadduqika ci sa yalwaan nga téye li nga yore seen loxo ngir nga mën koo fajee sa aajo moo gën nga li nga xam ko jeex nga dem di yalwaan yi wa talabuka li ma fii yeddi xayrika hmm. sàkku li nga xam ne dafa nekk ci loxol keneen wa talabuka ak waaw moo mott eh, maanaam nga nga wattu nekk sa loxo bi hmm. di faj say aajo mo gëna a xëy ci ngay yalwaani wala ngay dem di sàkku la nga xam ne ma ngi sa loxol keneen moo xam ci bor nga koy sàkko moo xam ci ñaan nga koy sàkko wa qaala xislataani mu waxaat moom sula so ñaari jikko walaw sadaqa saail laa yasaalu abdu bi xayrin maa xafisahuma mu ne xislaane xislataani mm. ñaari jikko ngi laa yasaalu dañ alabdu jàmbi bi xëyin ci xiw mm-hmm. maa xafit sama feeg mu ngi leen di wattu mm-hmm. dirhamuhu li maasihi mm-hmm. dërëm moom bi pour dundam bi wa diinuhu li maadi ak diinaam pour delluwaayam mu ne nit am na ñaari mbire ngi nii fekk nit kaa ngi koy wattu du dañ di nekk ci lu baax mooy sa dërëm bi nga xam ne moom ngay dundee nga fexe ba sa dërëm bi ngay dundee nga nga sa ko sa bopp sa diine ji nga xam ne mooy tax bu àllaaxira rafet nga rafetal ko mooy nga toppatoo sa diine waaw moo taxoon mag ñi daan wax ne jullit dafa war a séddale waxtoom bésam bi ñeenti waxtu waxtu woo xam ne danga siy wut sa dërëm booy dunde ak waxtu yi nga xam ne danga siy sàkku xam-xam pour nga ndax xam-xam bi mooy defar diine ji mooy defar àddina bi ak waxtu woo xamne dang ci noppul nek sa kër di len bëggal ak di len foye ak waxtu woo xamne dang koy jox sa borom di si jaamu yàlla wa kana khays ibn asim khays ibn as nekon na ma zuhdihi ànd ak lim dudd won àddina dudd àddina wa waraihi ak sàmmoon ngam sàmmoon nga xamne du lek len lo xamne ne lënt na يقول لبنيه دون واخ دومام يني عليكم بالكسب الحلال نغن تقو دي فاغو فاغو مو دغان لا واخ نك واخما نك فاغو مو حرام دلن فاغو دلن غور غور تي فاغو لو دغان فانه نك موم يسر صديقي يسر دا فاي بيغل صديقا خريت ويكمد العدو موي موي موي جاكلو نون ولا موي نقرال نون مولا نغن دي ساغو فاغو دغان نخ fàgg mu dagan boo xam ne day bëggal sa xarit ndax sa xarit yow loo bugg a def def ko sa xarit day bëgg doo dem di taxawaalu kenn doo ñaanaan du xaaraat loolu day bëggal xarit waaye dafay dafay naqaral noon sa noon bi doon la ëppal pour boo ko boo ko lebee mu soxore la wala nga dem di taxawaalu ci nit ñi mu gis defoo ko day am lu ko naqari wa yastaxluuna bihi an su'aali nnaasi ngeen doylu si timin ngeen si wa tasaw ngeen di si doyloo laaj nit ñi te bu ngay demee tamit dana tax dootu leen dem di laaj kenn te nit ñi boo ko doon laaj doon sa suuf la sax bu yàggee mu xaddi la siyama la im rawatina nag ku soxor laaj ku tawe sax laaj ko dafa métti waxuma laa nag ku soxor nag wa iyaakum wa suali nnaas na ngeen wattandiku di laaj nit ñi fa inna dhalika kasbul aajisi naka laaj nit ñi mooy fàggu ko lot laaj fàggu ko lot la ku lot rek waaw la la gumba la lafañ ku lottu rek moo moo loolu mooy fag ku ku ku laaj moom ku lottu rek moo ko war a def bon loolu moom la suuraan su yi doon wax waaw ka astaxfirullah Qays ibnu Aasim muslimin moom la dénkoon ku dëddu woon àddina la ku la waaye li mu doon dëdd dëdd àddina sàmm sàmm li mu doon dénk doom yi nan da ngeen di fexe di fàggu fàggu mu dagan moo xam da ngeen di commerce moo xam da ngeen di bay moo xam da ngeen di am métier dangeen ko def ndax dafay bëggal seen xarit di jàkkaloo seen am noonu تدفعت عن دولي ولسجان لاني رواتنا كصور ونجان واتن يقول لاني دخل لاج فابوكو لطلع نت كي دفعت عن كتاب ولا كوكمان بينك كولوت وقيل لي سوري وقال سفلان سوري ان يكون زاهدا ان يكون الرجل زاهدا ويكون له المال ñu ne ko waaw ndax nit dina nekk ku dëddu àddina fekk mu ngi am xalaal qaala naam mu leen waaw isa talaat isa tulliya buñ ko nattoo ci alal yi sabara mhm. mu muñ bu buñ buñ ko joxee sakara mu sant mhm. waaw ndax bu fekkee ne am na xalal xalal ji buñ ko si bu jokkoo mu sant buñ ko si nattoo mu muñ te ñaar yooyu yëpp mm, jullit bi bu mu si def rek tiyaabo la وقال أبو قلابة كي صاحب أبو قلابة هنا كان أرى لأن لأن لأن أرى في معيشي أيوة في مع في معاصي أحب إلي أن أرى في زوايا المسجد من أن يقسم ما نك سما دندي ما نك سما لمي دندي ما خم سما طالب ولا سما بيتيب ولا سما أتليب نقسم ما نك سما مملا عن أبو كسي نيو ما يقسم ما نك تكون جاكي وقال عليكم ci jakk مولا وانا تقول المرسي والصنعة أكمتي فإنكم لم تزالوا دين دين دين دين دينك كراما دين نتد على إخوانكم سن بقي ما لم تحتاجوا إليهم فك هاجو هولن دمهم لن فقولة نيوم دين دين دينك نتد نيو خمنا نيو أم دين تلن سن بقي فك هاجو هولن waye bu ngeen haajo ci ñoom rek seen tedd nga yak seen digis yëpp fay daal di daanu انتهى قال في لغة أنوار الكرسي قال في بحر الموروث وقال في لواقع الأنوار القدسية وخنا تي تي بنيو لواقع الأنوار القدسية أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم جابنا نانتي كل كوليرا غو مات ني جيلي صلى الله عليه وسلم أن ننفق على زوجاتنا موي كوليرا غو موي ني دوندال وعيالنا اك سن ثم قال وسمعت من جابنا كل كوليرا سي يونس ني دي اك سن من سم توب مو وسمعت سيدي, سيدي علي آه. الخواص آه. كان لا تيت ولي يالله مو ديغونا سما سانغ اجين خواص يال نكو يالله يرم يقول مو واخني اسع اسع اسع اسع دخل على عيالك ليلا ونهارا نغا دوخ تي ساي نجابوت غوديك بتيك او لو ولو سماك الناس دنيويا مدل دوخ تي سام بير نجابوت غوديك بتيك با دونتي نيت ني سا دا نتو دي كي بوغ حدنا كي نيت حدنا رك فإنه خير من أن يسموك صالحا وأنت تأكل من صدقاتهم. موغن يتولي باخ تفك يانغي لك سن سرخي واوساقي اك سن سالتي ندخ سرخ كات سالت رك نون لكو سن فال دون واخ مون مون سا صديقات اك سيفي مون لا رك رخصت نك من من من تدف سي ندخ waaw boo moom moo tax mu ne lu ñëw rek booy woo nga jox ko nit ñi ndax nit ñi kat li ñu lay jox seen raxas seen salte yi rek seen raxas gis nga fii la ko ñoom mag nit yàlla yëpp bokk wax voilà wa naazir li maa fi aydihim maa fi aydihim aji xool li nekk seen loxo yi wa kullu man lam yu'tika shay'an képp ku la joxul dara tukrih nga sib ko maa anna tilka al karaahi ànd ak nekk sibel gu kat min ghayri haqqin nekkul ci dëgg mu ne doxal ci sa njaboot gi guddeeg bëccëg bi donte dañ lay tuddee ne yow nit ak àddina nga mm-hmm. ndax moo gën ñu tuddee la ku baax ba pare ngay lekk seeni sarax ak seeni euh, salte yi seen tilim yi ak di xool li nekk ci seen loxo yi laa ngi xool mu ne ku la jox ku la joxul nga sib ko ku la jox nga tagg ko ku la joxul nga ne diw dafa bon te te sibel googu nga koy sib ko nekkul ci dëgg te wax na dëgg koo xam ne ni nay jox rek ah diw de du joxe diw dal mom diw ah diw diw ko gën diw nangam te fekk nak yow ya def li nga def ndax ya waron dem fagu ji te fagu ji so fagu fàggu joon doo xam ku ba ku baax ak ku bon ko xam ku gëna a ku gën وقد رأى سيدي علي القواص سما سانغ أليون خواص قيسون مرة شخصا بن يون بن واي من مسائق العصر سيرني جام جام كان يتجر في البذ والقماس نكون دي كوميرس سي بيس اك اك اك نديمو فترك ذلك موبايل لولو وعمل سيقنا وعمل شيخا مو مو فقال له ارجع الى حالتك الأولى الأولى نعم مونيكو ماني بوكو سي ألين خالد بيسن نكو دلو سيسب ملوكان ونجكو دمان إيه. سيسب بيس ياك سيسب جاي تا تا تا تا باي شرين فإنها أرجح لك مو غني هم ياك مو غنا هم ياك أرتيو وأطهر لقلبك مو غنا لاب تسا قلبي فلم يسمع فلم يسمع تا جيقول فدعا الشيخ علي الخواص علي فلم يسمع معلم يسمع نعم تدق ba mu ko waxee loolu waa ji foog ne sëriñ comme nga gis léegi gaa yi dem ci def sa bopp sëriñ mm. ah ne sëriñ ji moo gën a neex ut sa kaar ak sa kurus mu ne ko ma ne baal lii te nga dem sa sa métti mu njëkk ma ah, moom mu yaakaar ne kii da dara ji mu nekk ak yooyu la ko sooxane mu bañ déglu mm-hmm. fa daa alayhi mu mu ñaanal ko yàlla bi mahabbati dunya wa hirmanihi minha mu ne ko yàlla na la yàlla bëgg loo àddina te yàlla na ko yàlla kañ

fatalafa bil kulliya mu mu yàqu ci lépp léppam yàqu waaye bu defoon la ko sëñ boobam diinaam ji dina baax àddinaam baax li muxaalafati l isaara ngir ngir wuute gam wuute ndigal irshad wala irshad la def irshad ngir wuute jubal ga nga xam ne moom la ko sëriñ bi jubaloon moo tax su dee na nit nga ne ñëw si nit ak yàlla mu sant la dara lam la sant bu la neexut mel demal def ko boo ko defee njëriñ lay doon waaye bu la ko digalee nga dem wàcc ko fa dem ko foog ne li nga nekk moo neex dangay dem ba mu yàgg rek mu inqilab nga nga rëcc ko waaw bëri nañu ko doon def jamono def ko pare dem dangay am kër am oto ba mu yàgg rek mu mel ni eh, day ba jalab tabaxab beeñ ah, taw sotteeku ca mu xëy rek ne sa sa xeem seey léegi min nga dund bu neex mii nga oto moo noon nga yëpp te mënatoo ko xam su ko defee nag sa saqawoo ngay dund te mm-hmm. fekkoon ne demoon nga nag liggéey am loo xam ne la nga am kër goo am bu xema maayee su dee ne ab sa welo moteur nga am wala sa welo pédal da nekk ci texe waaye nga am 4 x boo tappale ak kër goo tappale bu yàggee bis dina ñëw nga ñàkk ko su ko defee nag nga nekk ci coono loolu moom la ñuy moytuloo ñi nga xam ne ñooy nitu yàlla yi rawatina ñi nga xam ne seen maam ñi dañoo jaamu yàlla ba yee yàlla teral leen ñu jàkka ne teraanga jooju rek tàggatal leen nit ñi buñ foog ne nit ñi seen i jaam lañ nga nga nit ñi dañuy wax ne nit ñi buñ la yëkkatee ba sa tànk yi laalata suuf dootoo jëm fa la neex moom benn ñu lay jox defal la lépp waaw soobaa nag fu nga fañ bëgg ngay jëm de waaye doo dootoo jëm fa la neex waaw bon nañuy ngeen di fexe ba ku nekk xam la ngay fal te la nga am bu ko laaj laaj dafa métti laaj du métti métti la yàlla nu yàlla jox luñ doylu mm-hmm. jox ni loo xam ne danañ ko doylu wala si ñuy dem di laaj nit yàlla jox ñu loo tamit dañ ba nga xam ne yàlla def ñu nekk ñu tabe lañu xam képp ku ñëw ñu si laaj ñu mën la koo jox mm-hmm. yàlla ñu jox lu ñuy joxe waaw man see xam ne suñ bopp bu pare di si dimbali ñi nga xam ne dañoo xaaju darajaay yonent bi ci barke Cheikh Tidiane ci barke Alaaji Abdoulaye ci barke Cheikh Omar Fouti borom téere bi ci barki mboolem ci yàlla yi yàlla ñu yàlla boole ci gaa yi ñi nga xam ne ñu kenn du leen mënal dara daara alxuraan yi yàlla ñu ko yàlla sàmmal yàlla moo ne maay wattu alxuraan moo boobaa ci mooy wattu ñi nga xam ne ñoo xam ne alxuraan ndax moo doon doo téere bi ñi nga xam ne moo ñoo ko soppi jaamam bon képp koo xam ne dangaa jóg bugg a fay daara wala nga sa xëy ne mooy loolu yàlla la ko yàlla baloo boo ko mënta bax yàlla na yàlla fab wee daara làq leen foo xam ne sa loxo du xàgg ci ñoom ba doo leen mënal dara na nga na nga wattoo sa téere bi yàlla na nga ñu leen ko wattoo te yàlla na nga ñu boole suñu bokk suñu alxuraan bokk su ñu ko bëgg bokk ñu koy jàng ak di ko jàngal yàlla defal ko suñuy doom ak suñu sët ba pencam yàlla allahumma salli ala sayyidina